laay asalaamaaleykum sama mbokk jullit yi rawatina sama mbokk jigéen yi maa ngi leen di nuyu nag bu baax di leen sargal di jégalu tuuti nag si tardement bi euh, ba ñu sante suñu borom yàlla boole ñoo Pape Ibra ñuy sant bu baax nag ndax euh, jàppale nañu si dooleem mën-mënam xelam mu sell kon ñun Pape moom rek lañu am fu mu ñu tegloo si suñu tànk foofu lañ koy teg fu mu ñu xoolloo fa lañ koy xool yàlla dogal nag ñun ñëpp ñu bokk bëgg-bëgg ak gis-gis ak gëm-gëm ñuy santaat bu baax ndax euh, suñu càmmiñ yi jiital nañ ñu te fakkasaruñu benn yoon kon nag mm, lépp Pape la daal ndax Pape moo làmb poosam foofu laa njëkk a wax jox ñu xaalis bu bari ne jigéen bariwul doole te e, yëf yi metti na kon ngeen dem liggéey ñuy liggéey di liggéey ba toll fii ñu toll di santaat suñu borom bu baax ginnaaw paap kon nag ñun ñëpp nañ ànd jàppoo ak e, Sonko ak Bassirou Diomaye ak Pape Ibra Diop ñu takkandoo doon benn ba ñu ba lépp daal ñu am ko waaw loolu daal laa amoon lu ma siy wax maa ngi sant nag bu baax sama mbokk jigéen ñi waaw. yi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ñoo ma jiital suñ coordonnateur Ahmadou Lo di ci teg coordonnateur wu mouvement ànd suqali Mbàkke di nuyu parti politique yi fi teew yépp ak mouvement ak sympathisant yi fi teew yëpp tey nag dañ ne bis nit dana wax ndax borom bis ba moo tax tey danaa xëtt parti Pastef euh, règlement intérieur bi ak règlement bi ñu fi teg ngir Matar Sow ndaxte Pastef dafa nekk parti bu organisé wu en porte-parole lu ñuy def ci organisation lañ ko teg tey nag ma jël sama propre initiative pour wax lii may wax tàgguwuma coordonnateur Ahmadou Lo tàgguwuma Matar Sow tàgguwuma keneen 2020 laa ñëw Mbacke Xewar 1 nekk enseignant fekk fa Matar Sow mii moo ñëwee enseignant yi kenn waxul waxi Pastef ma nekk fa un seul élément pour Pastef may liggéey ci école bi di liggéey ci bi ma gis doxalinam Matar buñ ne extrait xale bi nata def exame amul extrait Matar mooy jàpp ci loolu ba xale boobu am extrait mu def examen Matar buñ ne nettoyé école bi maa ngi moom ñoo koy ànd ba 13 ak élèves yi am enseignants yoo xam dañuy fas seen loxo Matar buñ ne jëmbati garab ci école bi maa ngi moom ñoo koy ànd ba 13 jot ñu daal ak doyen ñu daal di ànd ak élèves dem ñibbi ma gis loolu ma ne ko Matar man de Pastef laa nekk te lii ngay def Pastef la kon engagement bii nga am ñu soxla na la Pastef mu ne man ci mouvement laa nekk lo mënuma koo xëtt sàtt mouvement bi ñëw Pastef xañ na naa waxtaan ak gars yi nag biñ defee loolu ñu def noonu ba école di bëgg tëj le 10 février Ousmane Sonko di ñëw fii mitin bu metti boobu Matar nekk fii ci jagam bii yàlla dogal man biñ rokaat bee bi fi Ousmane Sonko ànd ak Ousmane euh, Coro ñu baare leen amuñu fenn fuñ jaar Ousmane Cheikh Thioro ne ma baaba est-ce que am na fii yoon yoonu suuf man maa leen jaara ci yoon suuf bañ agsi fii ci terrain gaar bi bi ñu agsee ma fekk Matar mu toog ci jagam ma ne ko Matar indil naa la Ousmane Sonko keroog tànkam da doon met mais dafa bég ba nuyoo Ousmane Sonko 5000. ñu continué ci loolu mu ne ma baaba man de ni ngeen doxal damaa neex léeg-léeg day ñëw ne ma baaba damaa soxla bracelet may indil ko bracelet mu jaay lépp damaa soxla carte de membre may indil ko mu jaay lépp. mujj ma ne ko Matar dangay ngay wax ak Axma ñoom parce que li ngay def ñun soxla nañ la tey itam ñoo bokk fuñ jëm kon yaakaar naa dara mënuñoo boole. kon bu tey jii lii teewee lii am kon grace a Matar mais man moom laa mën a wax. xañ na nag am na ñeneen ñu ci rôle joué rôle bu am solo mais man Matar Seck Sow laa xam lool moo tax ma indi témoignage bii xañ na. am na ñum dérangé am ñum dérangé wut xañ na am na loo xam ne waroon naa ko waxuma ko waaye nag man dama naan gàcce ngalaama Matar Sow c'est grâce à wasalaam. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa yu baax yi mooy ay mbàkke mbàkke ak ay kilifa yu baax yoo xamante ne bii ñu ngi fii ci ndaje mi. di nuyu sama mbokki bopp moo waxee sama mbokki bopp nag mooy mbokki Mbacke Dimb euh, waa Mbacke Dimb gàcce ngalaama ndax tey mobilisation bi tey bu réussir yéen yéen a ci jàpp gis nañ jigéen ñi taxawaay bi rafet na trop di nuyu waa mouvement ànd suqali Mbacke euh, mouvement bi nag booy xool manti ci ñi mujjee ñëw ci mouvement bi ci laa bokk mais dañ ne nit buy def lu baax ci ab koñ wala ab gox nga gis ko boo ci sa loxo rek day mel ni da ngaa soxor wala da koo yéenewul ba ma gisee docteur Pa Ibra muy dox ci social di dox ci lu jëmale askanu Mbàkke kanam euh, ci laa ne ko Pa Ibra affaire bi war nañ koo gën a yaatal ba waa Mbàkke gépp gi ci seen bopp ci loolu ci lañ yaatal mouvement bi di ci dox ba yàlla def ñu egsi en 2021 ci élection locale yi ah élection locale yi nag bu ma ci taxawee tuuti je crois que ñun joué nañ ci rôle bu am solo parce que bëggoon nañ def benn fédération boo xamante ne bii ay alliance lay nekk ñun mouvement yi ak parti politique yi nekkoon fii yépp contre la coalition Benno Bokk Yaakaar mais yàlla dogal na loolu antuwul ba ku nekk demal sa bopp ñun aussi tamit au niveau euh, du mouvement ànd Suxali Mbàkke ñu ne pourquoi pas ñun tamit mënuñoo demal suñu bopp bien vrai que ab mouvement lañ mais ñu am gëm-gëm am pas-pas am engagement ci li def ba taxawal suñu liste dem pour suñ def élection yàlla def na ñu am benn conseil muy docteur Pa Ibra kon loolu <coughs> dama ne bu nit ñi teewee man man maa ci gën a tuuti daanaka kàddu ñi nekk sama ginnaaw fuuf ñoom ëpp kàddu ñoom ak ëpp maqaama téeméeri junni yoon kon tey bu ñëwee na ma waxal kon dinaa am fierté moo aussi tamit dinaa am jafe-jafe aussi tamit pour wax li ma bëgg a wax lépp parce que jàpp naa ne waxtu wi du ko mate bi ñu jógee foofu aussi tamit élection locale yi ñëw élection législative ma ne Pa Ibra man de jàpp naa ne ni ñu doxee nii jàpp naa ne ñu nag euh, waa Pastef fii parti Ousmane Sonko bi ñoo bokk benn idéologie ñoo bokk ay dynamique bu ñu demee pourquoi pas mënuñoo dem intégrer parti bi benn yoon ànd ak ñoom liggéey mu ne ma ah comme que mouvement lay nekk te man kese moom ma ko nañ waxtaan suñ biir rek lu nit ñi juboo rek d'accord naa ci ak gis nga gi paa bi ni mu amee ni mu amee fula ni mu respecté doomu aadama aussi tamit ni mu démocratique bu fekkoon ne moom la moom na nag nañ dem bokki fa mais dana nañ woo askan wi waxtaan ak ñoom bi élection législative yi jàllee ñu toog waxtaan mu jógee France ñëw la veille des élections avant ñuy reporter élections yi defoon nañ sa benn déclaration déclaration vidéo ba léegi gënul defoon nañ déclaration ñun dem nañ Pastef mais boobu peut-être après ñu reporter élections yi mu delluwaat maintenant nag loo gis rek dafa am jot dafa am waxtoom je crois que suñu ancrage ak Pastef je crois que waxtu wi jot na moo tax tey euh, le 5 samedi 5 octobre 2024 vendredi 4 vendredi 4 octobre 2024 désormais le mouvement And Suxali Mbacké est en phase avec le parti Pastef loolu je crois que bu ñu ko waxee warul bett kenn euh, di sant nag suñu mbokku Pastef yi les patriotes bu ma santee coordinateur sant soxna Awa Seck mii nga xam ne yàgg na topp ci ñun ñëw na fi ba tey di ñu wax ne ñëw leen ngeen bokk ci parti bi ndaxte ñun ak yéen ñoo bokk lu ñuy def kon soxna Awa je crois que sa sa sa sa mëbét àgg na sa ñaan aussi tamit nangu na. di sant aussi tamit mes frères yi nga xamante ne bii ñu ak ñoom yàgg nañu di ànd di liggéey ñoom Sele ñoom Yara bu ma limee dinaa juum di sant la coordinatrice muy Soxna Coro wax na fi kàddu yu am solo ñoom Ndeye Fall ñu ñëpp gis nañ seen taxawaay tey bu mouvement bi egsee ba fii yéen yéen a tax Paa Ibra nag lu mu man def na ko lu mu man rek defal na ko waa Mbacke dimb lu mu man rek defal na ko waa Mbacke combat yëpp yu au président de la république li doxal ci réew mi mu doxal ko kon coordinateur Axma euh, mbay Seck ak euh, Serif et mon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm tey lii bu yombee kon jàpp ne yéen aussi tamit joué ngeen ci lu bu am solo ba tax mu si fii te lii dañoo bëgg aussi tamit mu gën a yaatu képp ko ngeen gis ci dëkk bi ay loxoom set mu bëgg dëkk bi bëgg a jàppale le président Ousmane euh, le président Ousmane Sonko parti Pastef dañu bëgg ngeen dem waxtaan ak ñoom ñu ñëw ngeen def massification ba nga xamante ne bii parti Pastef dina sillonner tout le Sénégal ba fi mu bëgg a àgg fépp mu àgg fa kon maa ngi guddal euh, di wax ne pare nañ je crois que euh, tout est fin prêt pour ñu dem ci ay élections législatives yoo xamante ne yu apaisé la ñu ànd def campagne bi ci jàmm ak salaam comme ni ñu ko defee woon ci élection présidentielle yi yàlla may ñu ndam lu sedd guyu incha allah rabbi kon ñu ngi santaat bu baax a baax di gërëm kon ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm encore une fois population Mbacké di sant aussi Pa Ibra Diop vraiment nit la koo xamante ne bii c'est un homme sans façon pratiquement euh, ñoo defandoo lépp ñoo jàngandoo ñoo foowandoo ñoo defandoo lépp mais na ma ko xame woon ba muy nekk xale ba léegi noonu la mel gone gu ndaw mën na ko yendal fii mu toog kon nañ ko jàppale ñun suñu doom la te jàpp naa ne xam-xam bi mu am ba fu nekk ci àdduna bi mu fiy wër di fa jàngale di fa liggéey kon Sénégal soxla nañ ko nag Axma il est temps ñu def tout pour que le retour au bercail pour Pa Ibra Diop ñu jox ko ay responsabilités fii aussi tamit mu mën a jàppale le président de la république et son gouvernement pour que le Sénégal jëm ca kanam maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen euh, di sant aussi di gërëm suñu coordinateur Ahmadou Lo mi ñu àndal ak délégation bu am importance bi nga xamante ne Pastef moo ko composé xamante ne Cheikh Diop mi ngi si biir. Mao mi ngi si May Seck mi ngi si ak waa GPS kon nag macha allah ak soxna Awa Seck ak euh, Serigne Babacar ñoom ñëpp bokk Pastef kon tey mën nañu wax ni famille Pastef ñoo ñëw uy si famille Pastef man nag à chaque fois dama naan mention spéciale aux dames ndax euh, li ma yàgg a wax rek yéen moo ngir mën firndeel tey ndaje mii tey su élection amoon yéen jigéen ñi ko mooy gagné kon nag gàcce macha allah damay sant yàlla à chaque fois su ma gisee ndaje Pastef jigéen ñi ëpp fa ñu baal ma nag man ci côté jigéen ñi laay waxee ndaxte maa ngi tudd madame Mbacke Yacine Ndiaye maay coordinatrice Moussa Mbacke maa jiite jigéenu Pastef Mbacke. macha allah man dama ne tey ñëwul ma Paa Ibrahima laa ñëwal bi ma gisee mbooloo bi dama kontaan dama ne macha allah Pastef tey mu dooleeku ndax xam nga ci lan lay dooleekoo ñun jigéen ñi ci luñ jàpp rek mu dem ñun jigéen ñi suñ bokk see àndandoo. booloo doon benn Pastef day jëm kanam moo tax man à chaque fois mbooloo mu ma dem damay ñaan yàlla fekk fa jigéen ñi ëpp fa ndax bu fa jigéen ñi ëppee rek dama fay am yaakaar yàlla bu yaakaar tas ci barke Cheikhul Khadim maa ngi leen di oowaat nag di leen tàllalaat loxoom di leen wax ne bala may dem euh, soxna Thioro ma leen kontaan naa macha allah ma chérie dinaa gis sa numéro ah yaay responsable yu fii comme ça ma mën a am responsable yeneen daam yi ndax moo jub am na. Euh, groupe whatsapp boo xamante ne Mourchid Mbacké la ah dañuy ñaan yàlla yéen tamit ngay ñëw bokk si ndax à partir d'aujourd'hui ñun waxatuñ ànd Suxali Mbacké ak Pastef dañu naan jigéenu Pastef Mbacké bienvenue mes chers sœurs fi mu ñu ne yéen ñoo yem ci liggéey bi ñoo ko bokk tàllal nañ leen loxoom ah di leen oo ñu booloo doon benn àndandoo liggéey pour Mbàkke jëm kanam ndax pour Mbàkke jëm kanam kat kenn du ko jëmale kanam ñun jigéen ñi ñoo koy jëmale kanam encore une fois merci beaucoup au docteur Pape Ibrahima Diop merci beaucoup à tout le dañuy jël comme déjà su coordinateur wax na dañuy confisquer micro bi ci yow parce que ñu des ñëpp waa Pastef la te léegi ci Pastef nga comme confirmé na te caché na fu mu toll nii MAS amatul Pastef moo am d'ailleurs muy lu ñu gën a neex pour communication am na kan déjà nu mu science bi yëpp déjà da ngeen a ñëw ñun ñu opté déjà may sa merci travail bi am na solo trop donc di leen wax ne balaa suñu coordonnateur aussi di wax muy xam ne moom mooy tëj euh, allocution yi tey dañu jox euh, mbay Seck dina wax présenter délégation bi nga xam ne si moo ñëw accueillir le mouvement de docteur Baye Diop muy MAS ak les militants buñ paree soxna Awa bokk Pastef Touba doon ka xam si njëkk nañoo wax ci paay bi la d'ailleurs 2018 si je me rappelle bien boobu nga ma doon wax à ce que ñu dem enrôle ko dana fi wax moom it buñ paree le trésorier Serigne Diop dina wax avant Amadou Lo di wax donc Maysa bu fekkee dañuy jël kàddu gi rek ci loolu la ñuy wax li ñuy échanger ak yéen nag mooy dañuy def une pierre deux coups comme ñëw nañu fekk fi mouvement bi ñëpp ñu doon désormais des militants de PASTEF danañ échanger ak ñoom ci réglement règlement PASTEF doxalinu PASTEF ak lépp parce que context bi moo ko laaj maître Mbaye vous avez la parole. ak ak Bousso ak ñëpp rek donc di leen jox seen wàccuwaay euh, wax ni ñoo ngi ñëw ànd ak la délégation de PASTEF euh, ki ko jiite nekk le coordonnateur départemental Ahmadou Lo moo toog nii ci wetu Maaw mbay en casquette donc bi aussi bokk na si Mao Mbaye bi doon wax sànq le chargé de communication de Pastef Mbacké ànd na si aussi Chérif Diop nekk trésorier Pastef Mbacké ànd nañu aussi soxna Yacine Ndiaye madame Mbacké jiite Mosib Mbacké donc moom mi ngi ak soxna Bousso Diba bokk aussi Mosib Mbacké ah, soxna Awa Seck di suñu jigéen aussi bokk Pastef Touba jiite aussi bokk si mouvement bi ñuy wax mouvement national des handicapés ba aussi bokk bureau politique national teew na fi ñu ngi fi teew aussi ci waa Pastef Babacar Gueye bokk Pastef Mbacké euh, Baba Ndiaye mi doon wax sànq aussi bokk Pastef Mbacké en même temps nekk le chargé nekk le coordonnateur de Pastef au niveau de la commune de Ngagne teew na fi donc ci délégation bi aussi Serigne Fadilou teew na fi Fadilou Ndiaye bokk Pastef Mbacké teew na aussi waa JPS bu nee JPS aussi mooy jeunesse patriotique sénégalaise donc ki leen fi représenté mooy Bas Noxo ak Serigne Fallou Samb bi nga xam ne mooy yor organisation donc ñooñu ñooy ñi fi teew tey euh, ci turu Pastef donc ci njiit coordonnateur Amadou Ba donc bu ngeen gisee ni ma présenté délégation bi euh, c'est juste pour vous dire que Euh, sans transition wax ngeen xam ne kon Pastef parti bu organisé wu parce que li ñu wax fii organisation moo koy may donc Pastef dafa am ay coordination au niveau des 46 départements du Sénégal foo dem ci Sénégal am nañ fa coordination donc bi ñu amee ay coordination aussi ñu am ay sections au niveau des communes donc département de Mbacké mi ngi compter 16 communes 16 communes yëpp am nañ fa une section communale am coordonnateur boo xam ne moo ko jiite avec son bureau exécutif donc boo demee si section yi aussi dafa am ay mouvement am na mouvement jigéenu Pastef boo xam ne au niveau national la am mouvement donc magi Pastef am mouvement des artisans am mouvement des handicapés am mouvement national des cadres de Pastef am aussi la JPS donc mu nekk un parti très organisé un parti aussi très démocrate donc li ngay firndeel mooy ah dañuy wax souvent opposition bi di wax ne ah yéen yéen waxoon appel à candidature te defoon ko mais ci élection yi passé nag élection yi ñu jëm nii muy élection législative dañ cee wane une leçon de démocratie à toute nga xam ne dañoo def appel à candidature pour ñu bëgg a nekk député amul benn parti bu ko def ci Sénégal donc ñu bëgg député ñu bëgg nekk député euh, réunir les critères ñëpp dañoo déposer candidature donc loolu dafay joxe une leçon de démocratie donc pour wax ne donc yéen a ngi ñëw si parti boo xam ne c'est un parti organisé boo xam ne aussi boo si xasee dugg amutoo sañ-sañ bokk ci benn mouvement c'est bien ñu préciser ko donc à partir de maintenant donc mouvement ànd Suxali Mbàkke amatul Pastef moo am donc Pastef les patriotes bi nga xam ne président Ousmane Sonko moom moo ko jiite donc ki ko représenté fii di Ahmadou Lo donc di xam ne ñu ngi leen di souhaiter la bienvenue donc amaana euh, li tax duñu guddal ci philosophie Pastef dañoo jàpp ne yéen ñi ñoo xam ngeen ko te benn témoignage laa si joxe donc élection présidentielle yi euh, sama copain Maïssa Sow mi ngi koy wax sànq euh, dama jël sama kàddu sama initiative personnelle ma woo ko ndax gis ni muy doxe ci Mbàkke ak engagement ci cause citoyenne yëpp ma ne ko man de su ma sañoon da ngeen ngeen jàpp ci élection présidentielle pour li nga xam ne mooy fal président Bassirou Diomaye Faye ngeen ànd ko ak ñun ndax xam naa seen xam naa seen patriotisme mu ne ma man je suis un patriote déjà ma ne ko man xam naa ko parce que même boo adhéré Pastef tu es un patriote dans l'âme tu es un patriote dans le cœur mu ne ma woowal Pape Sow nga waxtaan ak moom aussi parce que xam naa aussi boo ko wooyee dina wuy si ma woo ko te bi ñu ñëwee ànd ak ñun ci campagne bi dañoo ñëw ak seen propre moyen comme ñun nañuy dox rek ndax Pastef c'est le don de soi pour la donc ñu ñëw ànd ak seen i moyen ànd ak seen xam-xam ànd seen ñax ba ñu gagné élection yi au niveau de la commune de Mbacké donc de leur rendre un appuyé donc ànd ko aussi ak seen coordonnateur docteur Pape Ibe Diop bi nga xam ne même bu fekkee nekk fi woon mi ngi doon indi ay moyens mi ngi doon ànd ak ñun aussi si xalaat ak si xel ak ci beneen fànn donc di wax ne aussi donc tey mooy le 4 octobre tey lañ ko acté mais yàgg ngeen dugg Pastef man loolu laa gëm yéen ngeen a bokk Pastef di wax ne dugg bi ngeen dugg yàlla nekk yokkute ci Pastef yëpp yokkute ci commune de Mbacké nekk yokkute ci département de di wax ne loolu mooy li ma ay kàddu donc amaa na sax maa ngi jéggu Mao parce que présentation kese laa waroon def waaye xaw naa xaabaaba ba wax loo xam ne sax santuñu ma ko maa ngi jéggu bu baax si kàddu yi su rafetee rek moom la yéene woon su amee lu dëngoo si ñu ngi si jéggu bu baax. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa diine yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk di sàkk si ñoom ñaan bu baax a baax. Euh, di nuyu nag bu baax a baax a baax euh, ñi nga xam ne tey jii ñoo ñu dalal fii waa mouvement ànd suqali Mbàkke nuyoo bi ne dañ koy jël teg ko suñu frère euh, Pape Matar Sow comme ça mu jàllaleel ñu ko ci membre mouvement yi fi nekk ñëpp ñoom ñëpp mais di nuyu aussi suñu kilifa bi nga xam ne moo nekk ci département bi ñu koy wax Ahmadou Lo di le coordinateur départemental Pastef Mbàkke moom tamit nekk nit ku baax a baax a baax ku généreux ku yaatal waxtu gi yàlla Euh, tey nag sama teewaay tey fii euh, ñaari taxawaay laa fi taxaw dama ñëw ànd ak sama frère bi di kër Gueye nga xam ne euh, fu mu fu mu fu mu jëm yóbbu ba ma nit fu mu jëm yóbbu ko muy tamit nit ku baax moom tamit su ngeen duggee ci parti bi na ngeen ko laajte ndax nit ku baax a baax a baax la kuy jàppale parti Pastef la ma ñëw am fi ñaari taxawaay benn taxawaay bi ma ñëw en tant que militante Pastef beneen bi dama ñëw en tant que yaakaar naa tey ñii ma gis fii duñ ma wax lan nga fi def ndax ñëpp xam nañ ne kër gi fi laa dëkk Pape Matar mi tey mën na ko seede caatu kër gi sama yaay lañ ko tuddee Pape Ibra Diop sama mag la sama xarit la sama confident la tey euh, li ma gën a neex tey bis yi ma gën a neex lii bokk na ci ndax dama yàggoon a souhaité mu ñëw intégré Pastef tey yàlla dogal ko kon sama xol sedd na euh, Pastef Mbàkke nag ay nit ñu baax a fi nekk ay nit ñu bëgg parti bi ay nit ñuy dem te jiitaluñ seen benn opportunité macha allah yal na leen yàlla lafal cat te lépp luñ bëgg ci parti bi yàlla leen dal mais Axma euh, yaa ngi dalal une personne exceptionnelle yaa ngi dalal ku généreux du généreux wul ci xaalis kese de mais xam-xamam lu ngeen ci bëgg a profité su ngeen yaatali di ngeen ko ci am li may wax je parle en connaissance de cause li may wax dama ko xam yaa ngi dalal nit ku am valeur moo tax ma ne euh, pour yéen ngeen intégré du métti ndax ay nit ñu am valeur ngeen fi fekk table bii tey ñii ñu ma maîtriser la ñu ma xam lañ ñu yàgg sonn ci parti bi ba Pastef nekkawul dara mais yéen tamit xam naa ne pour ngeen intégrer benn problème du ci am ndax gis nañ patriotisme ngeen di dund ndax euh, patriote du seulement avoir un membre mais loo xam ne moom ngay dund na Mbaye Seck wax na ko léegi patriote dans l'âme dafa am ci ay nit te gis naa ko fii ndax koñ bii bi ma nekkee xale ba tey fuy laa nekkoon kon yaakaar naa pour ngeen intégrer du am benn problème su ngeen ñëwee yéen jigéen ñi ma dam Mbacke mu nga nee Euh, yéen góor ñi kenn ku nekk fa ngeen di dugg xam ngeen ko ngeen ànd liggéey liggéey bu am bu am solo loolu rek la ñuy séentu ci yéen dañu jëm nag ci ay élection législative muy ay euh, muy euh, parti bu am importance ci ci ci ci ci ci ci Sénégal ndax le président Bassirou Diomaye Faye macha allah gis nañ liggéey bi ngeen xamante ni yéen jàpp ngeen ci mais dafa am lu des ndaxte dafa ñëw fekk benn budget bu ñu woote ba pare moom pour mu liggéey ci dafay jafe dafa nekk rek jàmbaar moo premier ministre mu ñëw nag tas assemblée bi lam ko tas tasu ko ci bakkenam wala tasu ko ci loo xamante day ut lu neex kenn mais dafa xam ne assemblée bi du assemblée bi nga xamante moom la Sénégal bëgg dafa bëgg un assemblée digne une assemblée bi moins digne de son nom loolu nag mu bëgg ay honorable député euh, proprement dit mooy ñi nga xamante ni ñii la réew mi soxla ñu koy wuyoo ay honorable ñoo xamante ni lu ñuy dund la kon ay honorable citoyen la bëgg yóbbu leen ñu nekk ay honorable député loolu nag pour mu am pour mu lim ci jublu mooy pour Sénégal jëm ca kanam pour Sénégal nekk Sénégal bi nga xamante ni moom la ñu souhaité il faut nag mu am ñi nga xamante ni dañ koy voté ay loi yoo xam ne njëriñu réew mi la loolu nag liñ ci bëgg am une majorité écrasante à l'Assemblée tey wóolu nañ leen ci tey yaakaar nañ leen ci ñu bëgg su ngeen ñëwee ñu àndandoo liggéey bi lu rafetoon pour mu gën a rafet maa ngi leen sant di leen gërëm wax ji mu ngi gudd xam naa Euh, di leen wax bienvenue ñu ngeen leen accueillir à bras ouverts egg si ngeen seen kër. asalaamaaleykum waa Mbacke Dimb maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp comme ni ko ñëpp defee rek ziar kilifa diine yi fi nekk di ziar ñi fi fekk Pape Sow dalal ñu ci mouvement bi ak waa mouvement bi jigéen ñeeg góor ñi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di sant aussi suñ benn membre bu fi nekk ma fekk ko fi muy sëñ Xaarim sëñ Xaarim waaw fii la dëkkee moom it euh, mu ngi liggéey liggéey bu am solo ci Pastef. fii la dëkk ci koñ bi xam naa moom it war ngeen a gën a jaxasoo ba liggéey bi gën a mën a doon benn voilà man nag yaakaar naa discours yi fi jàll euh, pour ma tegaat ci dara du yomb ndax wax dëgg yàlla am ñi fi jaar liñ fi wax tegaat ci dara du yomb xam naa peut-être fi may waxee rek mooy ci la personne de Pape Ibra Diop docteur Pape Ibra Diop. voilà ndax euh, yàlla dafa dogal dañoo nekkandoo man ak moom ci conseil municipalu Mbacké muy mairie Mbacké bi muy conseil may conseil dañuy waxtaan lu bëri nag wax dëgg yàlla dañuy waxtaan lu bëri muy nit ku baax comme ni ko ñëpp seedee waaw loolu laa xam ci moom tey le coordonnateur départemental bi eh, waxtaan nañ ci loolu ma gis ci moom moom moom la gis ci moom te boobu duggagul Pastef kon ngeen xam ne nit ku baax la ndax li ci misaal mooy eh, lii xew tay rek ndax dañuy waxtaan di waxtaan ba ci yàgg ma ne ko mais docteur yow déjà yaa ngi ci panelu Pastef lu Pastef di def yaa ngi ci te yaa ngi sa mouvement pourquoi pas munoo ñëw dugg benn yoon biir Pastef mu doon benn liggéey bi doon benn mu ne ma ah pourtant loolu de c'est une bonne mais nag du décision bi maa koy jël il faut ma waxtaan ak sama samay nit ñi ma war a waxtaanal ba xam lu ci seen xalaat bi mu defee noonu la ma woo ne ma kat loola kat yi d'accord nañ ci ma ne ko nag kon il faut appeler le coordonnateur départemental mu jàppal la jour ñu ñëw def ko intégration kon lii eh, foofu la jaar kon nañ ci sant yàlla bu baax a baax Euh, li ci misaal rek mooy euh, bërki démb rek ci ndox mi bi mu amee gis nga ñi njëkk a participer Sow mii fekk nañu fee premier jour indi euh, pompe ba pare Pa Ibra lañ doon laaj pour gasoil ak yooyu moo njëkk a joxe waaw ba leneen li démb démb am nañ malaat boo xam ne ci magi Pastef la bokk moom it dafa feebaroon bu nekk Cheikhul Khadim bañ dugalee ci panel bi ne dañ ko bëgg a jàppale moom moomu njëkk a woo dugal xaalis kon kooku yaakaar naa générosité am ñun Pastef xam nañ ko kon nag euh, su ñëwee ba ciy mbokkam war nañ koo seedeel loolu moo tax yaakaar naa ànd bi day ànd boo xam ne ànd bu naturel la te ànd la boo xam ne nii rek la mënoon a demee ndax dañuy ñaari groupe yu bokk jikko ku nekk doon liggéey sa côté mais liggéey bi doon benn nag ñu boole ko kon day gën a yokk Mbàkke day gën a yokk Pastef kon nag comme xam naa mu ngi guddi te le coordonnateur départemental moo war a jël parole maa ngi koy bàyyi mu wax ci turu Pastef turu Ousmane Sonko turu le président Diomaye ñu yëkkati jataay bi incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu ku nekk turam mag santam di leen ziar di jiital si nuyu bi ak ziar bi sinu kilifa yi nekk sinu ginnaaw dañu waroon a nekk sinu kanam ñu ngi leen di beral nuyoo di leen ziar di leen tàttagal. Euh, bu loolu jàllee ñuy nuyu waa Mbacke dimb yëpp di jéggulu ci toogaay bu yàgg bi ndaxte jàpp nañ ne sa 17h ba léegi yéen a toog di ñu xaar kon loolu ñu ngi leen koy jégalu bu baax a baax euh, bu loolu jilee nag ñu ngi beral nuyoo Baye Ibra di suñu grand di nit koo xamante ni yaakaar naa ne li ñu wax ci moom mënuma waxaat lu ko ëpp kon sëñ Matar ñu ngi leen di souhaiter bienvenue ah dama ne xaj na tey la ko yàlla dogal mais comme ni ko ñëpp waxee rek ba ngeen ñëwee Pastef yàgg na ndax maa ngi fàttaliku bi ma aw a Seck di booleeg Pa Ibra Diop c'était en 2019 su ma juumul booba ñu ngi doon waxtaan lu yaatu yaatu pour naka lay def ba intégré Pastef ndax idéologie bi mu yor ak idéologie bi ñu yor benn la ndax ñun euh, nu doolee mooy la don de pour la patrie mooy suñu devise mooy li ñu dëgëral bu ngeen gisee ñu mën a réussir projet bi mexi fii mooy kenn ku si nekk bu accès ba bokk si projet bi day fàtte boppam ngir am réewam ndax bu ngeen xoolee 21 mars ba mars 2024 loolu buñ ne la ay nit ñoo taxaw jàmbarloog état ba jële ko fi ñoo ñu xam nga ne li ñu joxe rey na lool dégg ngeen ci projet boo xam ne nag li ci nit ñi joxe li ci gën a néew mën nañ ne gën cee rëy mooy bakkan yaakaar naa ne bakkan lu mu rot rek loolu nekk na lu sérieux nekk na lu am fulla ak fayda te kii di Bassirou Diomaye Faye xam na bu baax lan moo ko teg ci réew mi muy ay bakkan yu tuuru son premier ministre président Ousmane Sonko xam na tamit lan moo leen jotalee pouvoir muy ay ndaw yu jàkk seen bakkan ngir seen réew jàkk kon ñun mën nañ ne saa su nekk fépp fu ñu mën a toog fépp fu ñu taxaw di wax euh, mënuñu bañ a bàyyi xel ñooñu nga xam ne tey jii ñu ngi biir suuf te dañ doon xeex leen ngir seen réew jëm kanam ngir seen réew jag ñooñu seen yéene tey devoir la ci ñun ñu àggale leen ko ba fañ tëdd ñu gis ne lañ doon xeexkat regretté wuñ ko ndaxte projet la boo xamante ni métti woon na lool mais alhamdulilah bi ñu yàlla dimbalee ba le 24 mars bi jàll. Euh, président Ousmane Sonko ak président Diomaye Faye jot réew mi sénégalais voté leen à 54 pour cent muy confiance bu rëy rëy waaye loolu ñu leen wootee lépp daanaka mën naa ne dafa am lu des ba tax li ñu yéene réew mi ak fi ñu ko bëgg a jëmale dafa am lu des moo tax mënuñu koo def ndax ñoom biñ ñëwee fekk nañ fi président Macky Sall budget buñ ko nattaloon pour mu waroon see déroulé ba. 24 euh, um, décembre wala mois de décembre bi ñu jëm 31 décembre budget boobu ñu fi dara donc ñii dañ daan dem sans moyen di doxal parti sans moyen donc boo leen joxee appareil d'état lu mbir mi métti métti danañ ko doxal waaye li ñu bëgg mooy le 17 novembre ngeen joxaat leen majorité assemblée nationale puisque ñoom ñu mën a voter budget boo xam ne moom la ñuy jëmale Sénégal fa ñu jëm. ndaxte bu bu côté de sante bi sooxewul dañoo fal ñu nekk ay jàmbaar moo tax sooxewul waaye fekk ñu fi budget boo leen war a mën a déroulé ba tax sant santé bi du sooxe su fekkente ne dañoo xool ñi ngi waajal ouverture école te gis nañ ne amaguñ benn tardement bu ci am ñii ñu dénk réew mi dañuy nit ñu nekk jàmbaar mais fekk ñu fi budget bu leen war a permettre nit ñi mën a ubbi jàng tey kon ñooñu jàpp naa ne li ñu bëgg boo leen ko defalee incha allah li Sénégal yi doon jooy seen rangooñ dina fer mooy fexe ba jox leen majorité assemblée nationale pour ñu mën a dérouler seen programme ah danañ sant yàlla bu baax nag bi nga xam ne doon nañ àndoon ak mouvement bi ànd Suxali Mbàkke ñi ñëpp gis nañ seen taxawaay ndax Baye Ibra Diop dana nekk ba France di yónnee ay moyens di wax ñi mu àndal mouvement bi dem leen ngeen ànd ak liggéey Pastef c'est-à-dire bu ñu foog bu ñu bokkutoon gëm-gëm mënuñoo ànd ndax bëgg-bëgg bokk gëm-gëm la ñooy ànd mosuñoo ànd ba riiroo mosuñoo ànd ba tojante bopp wala ñu wax dara ndax li ñu boole moo ñu ëpp muy Sénégal ñun ñi fi toog ñëpp kenn ku nekk sa yéene mooy Sénégal gu jag sa yéene mooy say doom wala say sët bis bu ñu agsee si fii ñu toll ñun jafe-jafe yi ñu dund ñoom duñ ko dund ndax ñun ñoo leen ko mën a teggil ñun ñoo leen mën a waajal Sénégal goo xam ne ñoom bu ñu egsee bu ñu leen di nettali leen Sénégal dañ daan dund ay jafe ñoom dañ koy wetti dañoo war a fexe ba indil leen Sénégal goo xamante ni bientôt dina mën a concurrence ak Allemagne bientôt dana mën a concurrence ak Arabie Saoudite dana mën a concurrence ak Qatar te loolu lépp pour mu nekk mën naa ne nekk na fi dara taxul rek lu ko tee mën a nekk li ñu gënoon a jafe mooy am njiitu jub te yàlla dénk nañu ko kon nañ leen gën a wóolu gën leen a gën a doyloo te ñoom fi ñu joxoñ ñu teg fa seen tànk xool fa incha allah ñaar ñi jiite ñu duñ ñu masoroñ duñ ñu ma sa woor kon ñëw ngeen ci parti boo xam ne ay nit yi am valeur si nekk buñ leen présenté kenn si ñoom rek wala mën nañ ne ki ci gën a tuuti buñ leen présenté rek maanaam mën na sax muy buñ leen présenté woon Fallou Sam si engagement am ak détermination ak taxawaayam daanaka doy na sëkk ñu egg si ñoom Fallou Sam kese laa ma nag ñuy jàll si ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi bureau exécutif nga xam ne lépp lu Pastef Mbàkke doxal ñoo ko doxal bi ñu Pape Ibro waxee ne dañoo bëgg a ñëw euh, say biir Pastef ndax ñëwoon nañ. bi ma ko dogalee bureau exécutif ne leen kat Paye Ibra kat yéene mooy nekk fi mu ne nii ànd ak ñun liggéey bi jël mouvement seeyal ko si ñoom ñëpp dañ ne daf ko yeexe waaye loolu moom gis nañ ne lu war a mën a nekk la kon Paye Ibra mën naa ne dafa jóge ci kër dugg ci kër wala si biir kër gi la génnee duggaat ci beneen néeg mouvement bi ak Pastef mënuñu leen a séparer ndax comme ni ko Mbaye Seck waxee rek Salémé fu mu taxaw mënoo ne ko bokkoo Pastef kon jàpp naa ne ñun tey dañ ko officialiser rek ndax lépp loo gis dana nekkat jour tel lañ ko officialiser mais bi ñu àndee yàgg na ndax niñ doon doxee ngeen di doxee te yaakaar naa ne ànd boobu day continuer ba faaw te itam dañuy ñaan borom bi nga xam ne moom mooy maye ndam ànd bi yàlla bu mu nekk ànd boo xamante ni dañ koy rëccu yàlla nekk ànd boo xam ne ñun ñëpp danañ ci bénéfice wu danañ ci gis njariñ te danañ ne yeexoon nañoo ànd ak Baye Ibra ndax ndaxte euh, li mu boole dafa bëri aw wax na ko léegi dafa baax lool laabir si xam-xam souvent daf may woo laabir lool ci li ma bëgg a ci xam-xam mais parfois des fois temps bi moo ñu du permettre mais xam nañ nit la koo xamante ni li ko yàlla defal si xam-xam na ko Sénégal dem ba jariñoo ko ndax tam Sénégal dafa am lu ñu am valeur te moom bokk na si nit ñi nga xamante nii Sénégal yi war nañoo bénéficier si xam-xam bi nga xam ne yàlla dénk na ko ah dafa guddi te li fi joroon wax yëpp daanaka mën nañ ne ñi jël la par njëkk jël kàddu yi wax nañ ko dafa mënutoon a ñàkk rek ñu toftal si ay kàddu waaye kàddu yi daal di si gën a rëy ëpp solo mooy sant ak gërëm ndax ñëw bii ngeen ñëw wax dëgg sedd na suñu xol ndax lu ñu daan def jàpp nañ ne bu ñu ko daan def benn mbooloo moo ko gën a man te lu mu gën a diis diis bu ngeen si jàppee dana ko nag oyof nañ xam ne lenn moo ñu boole mooy Sénégal gu baax Sénégal gu jag te am nañ yaakaar ne incha allah réew mi dina soppeeku avec président yi Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa merci la presse. ñu remercier waat la presse rek di wax ne foofu la.